kenn ku ne di la jox sa wàccuwaay ki leen santit bu baax ci jataay bi ak jàppandal bi ci am yépp euh, di félicité yi mel bu baax la commission communication culture ak composante yépp euh, muy euh, communication commission culture ci njiitu sëriñ wax na badul sëriñ Sabuso di félicité bu baax suñu unité d'alerte et prévention épidémiologie bu ci sëriñ docteur ko ak di santaat yàlla bu baax ci tey jii ñu jataay bii di def euh, évala évaluation bu ndaw ci màggal bi waaye maam ci njàngat moo xam dañ ci dellu santaat yàlla waaye di sant Sëriñ Muntaxa baax te di ko ñaanal ñu koy sant bu ndax décision bi mu jël décision bu jafe la woon ci ay waxtu jafe euh, mu jël ko waaye jële bi it ak responsabilité yi mu war a àndal waaye lépp it nag di feeñal ak sëriñ ndax sëriñ bi saa su ne ci jafe-jafe lañ gën a xam mu mel ne tey situation bi ñu jàll wane na ci lu bëri waaye surtout euh, tàllal gi xam ne sëriñ bi ubbeeku na ko di tàllal na ko doomi yoon bi muy ay borom xam-xam ca nangul sëriñ Tuubaa yàlla mën a joxe seen lépp ci xam-xam ci fànn bu nekk xam-xam yépp la la la muy lu am solo ci yoon yi ndax yoon daf ko laaj fi mu ko soxla muy ay décision yoo doy waar yoo xam ne defe naa bu bu ñu dalloo tuuti war nañ ci mën a toog xoolaat def une évaluation de fond bañ ko def rek de forme mais fond xool tiré ci conclusion yu am solo ci sunu biir waaye tiré ci ay conclusion yoo xam ne dana mën a jëmal euh, yoon yi kanam ci loolu it ñu ngi sant sunu kilifa Serigne Bass Serigne Bass moom seen doxaat ndax moom it processus bëpp moo gunge Serigne bi ci décision jiite na ci ñu ànd di ko dox ba yàlla def ci ndam yi mu ci def yàlla it def ci ay ndam kenn foofu ci li xel mën a nangu ci nga xam ne ñooy xayma ak saytu ci euh, scientifiquement defe naa lu lu amoon na ay ay ay lët lënt yu baree bare ci jaaxle ci waaye tey jii sant nañ yàlla bi xam ne tey suñu mbokk yi toog nañ taxaw te mën a wax ak àdduna bépp ci fànn gi ñu xam yi ñu jàng ñu mën ci wax ak bépp mën a taxaw wax ne màggal bi kenn du ko jam baaraam ci ne yokku na benn yoon pandémie bi ñeex loolu defe naa lu dal xel la lu sedd xol la ci yoon waaye lu sedd xol la it ci lislaam kon loolu ñu ngi leen ci sant bu baax ci tënk koy ji ñuy wax rek ne euh, situation pandémique bi ñu dund ci Bakel amoon na ay xattar ak incertitude yu bare bare bare yu dund waaye nag wan na aw yoon ak njàng moo xam ne defe naa bu ñu jëmee ci yenn édition yi war na mën a tax ñu amélioré suñu doxin ci yu bari ci secteur yu bari bi nga xam ne nekk metti na lool dañ koy jéggul donte ne sax du ñu jafe-jafe yi am ci ndox te yàgg fee am loolu comité bi lu mu mën lépp def na ko ci ànd koog autorité yi dem nañ ci li waaye nag ay métti la yu dal ci kaw ci waxtu yu xat dalit ci ay suñ ay kilifa am na ñu jàpp ne sax ne favoritisme dafa amoon ci séddaleem ndox mi jamono yooyu dégg naa ko ci réseaux sociaux yi ñu wax ne dañoo jox kilifa yi rek lañ doon euh, jàppale ci ndox ñi ci des dañoo tumuraay waaye ma bëgg leen xam ne demul dafa fekk ne oto yi fi ñëw bu doonoon million oto yi mënta satisfaire ndox ci Touba ci waxtu woowu camion dafa ñëw pour combler un déficit maanaam lu man ko mu man ko motti waaye suñu fekk si ndox xam yooyu dañu ñëw fekkul ndox bu baax bu dëkk bi amul ndox kam yooyu mënut a loolu moo doon suñu def ñu xam ne moom ñu ngi masulu ñëpp ci ka gën a sori ba ci ka gën a ndax ñun ñëpp ko waaye foofu ñu am ci lu ñu bëgg di ko proposé di ko wax na ci kanamu àdduna yëpp yëpp di ko def en tant que coordinateur d'organisation ñu wax ne li ñu bëgg waxtu wi nga xam ne moom la waajal màggal ñu avancé parce que màggal mu Tuubaa mënuñ su ko waajal ci ñetti weer boobu yàgg naa ko léegi nag li ñu bëgg mooy bu desetee ci màggal bi benn yenn travaux yoo xam ne war na mën a indi yenn rëq-rëq ci réseau yi muy ndox wala courant wala dara lu mën a doon ñu arrêté weer bi ci des nga xam ne mooy doon weeru màggal na doon weeru essai lépp lu ci doon def nañ ko testé xool est-ce que réseau yi ñuy dox est-ce que est-ce que est-ce naa loolu laaj waaye laaj di liggéey ba ci semaine màggal loolu vraiment du lu nit xam loolu moom maa koy wax fii en tant que coordonnateur je prends mes responsabilités loolu daal la am ci gàtt lu may wax di sant bu baax sëñ Bass waaye di sant boxtaan bi ñu seetlu lu quotidien di ci liggéey ndax ku ci ne ci loo manque loolu euh, moom fàtte nga sa bopp nag ngir sëñ bi waaye it sëñ bi bi ñuy sonn jaam yi rek taxul ñu sonn ci gis doon kenn te ñun nag au moins boo jógee sa kër bàyyi nga fa kenn xam mën na laa defar bi kon ñu war nañoo santaat yàlla bu baax te xam ne lu ñu daj rek lu nekk sëñ bi yooyu la ko ci ñu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan yàlla ñu teewaat ay yoon